mooy làmb la tey bëri na am na ñu bëri parcelle am dam seen kaw yàlla moom moo dogal loolu waaye ma ne ñaar ñaata yoon laa tere waa Pikine reer tamit <laughs> làmb la loolu dara mer ngémb taxumaa bëre ay jël revanche taxumaa bëre dafa nekk ci suma yoon ma war a bëre moom jël ko waaye incha allah loolu it mu defoon ba ba ba ba ba waa parcelle reeruñ incha allah bëgg naa ko delloo ba jour ba waa Pikine it ñenn ci waa Pikine nañu reer parce que Pikine am naa fa ay ay supporters yu bare bare waaw waaw gis na moom laa la wax moo tax da ne ama dugg na waa parcelle xaw ma tere leen reer ñaata yoon ma leen man ñaata yoon laa tere ñenn ci waa Pikine parce su ma bëree Pikine ba pare da ngay foog ne am nañ supporter fépp vraiment di ñaan daal incha allah suñu bis maa moom yàlla ci ñenn waa Pikine bu ñu reer incha allah